moom yi nga xamante ne moom moo jiite liste bu Sédhiou nekk secrétaire général intérimaire de PASTEF mu dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy ses invités kon Ayib kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf euh, Sadikh di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu patriote yëpp tàccu leen seen bopp patriote yi. mobilisation bi rafet na. merci beaucoup ñu di tëgg gaa yi tëgg gaa yooyu mën nañoo ànd liggéey waaye bu oraas bu amee orateur buy wax ngeen ànd ak ñun dal rek n'est-ce pas merci beaucoup. waaw jaajëf jaajëf di souhaiter la bienvenue à tous les patriotes di souhaiter la bienvenue à tous les alliés. di rafetlu mobilisation bi comme nuñ ko waxee bu ñu doon jël Dakar Arena xamoon nañ ni dina fees mais c'est au-delà de nos espérances muy wone rek détermination patriote yi di wone seen engagement di wone également seen mobilisation donc di leen remercier ñeen ñëpp yéen ñu fi teew ak ñoo xam na ñoo ngi seetaan à travers les réseaux sociaux di remercier également les sympathisants di remercier tous les alliés qui sont ici présents ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni on a atteint nos objectifs par rapport à la mobilisation de fonds on a atteint nos objectifs par rapport au fundraising di jiital si nuyoo bi nag les militants su ma nee militants yi nag mooy ñu nekk ci structure yi le bureau politique national wax également les mouvements fàttewuñu benn mouvement mouvement jigéenu Pastef la jeunesse patriotique sénégalaise JPS magi Pastef le mouvement national des cadres patriotes fàttewuñ leen le mouvement national des enseignants patriotes le mouvement national des artisans patriotes le mouvement national des patriotes handicapés ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen teewaay ak seen mobilisation rafet na soo leen xoolee liste nationale PASTEF bi di ngeen gis ñiñ fa cité yooyu yëpp ñoo ngi ci liste bi c'est une liste vraiment qui qui est à l'image du Sénégal une liste boo xam ne y a les jeunes y les femmes ya les artisans ya des cadres ya des handicapés y a des enseignants y a tous les corps de métier qui sont représentés sur cette liste nationale ba pare liste bi ku ko jiite mooy le président Ousmane le président waaw nag président Ousmane Sonko moo ngi fii dina ñëw léegi wax ak yéen Inch'Allah le président Ousmane Sonko est ici avec vous pour communier avec cette jeunesse pour communier avec les patriotes pour communier avec les militants pour communier avec les sympathisants ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp lu ñu bëggoon wax di rendre hommage également à tous les élus qui sont ici présents mooy suñu député de la quatorzième législature ñoo ngi leen di jaajëfal seen taxawaay rafet na seen liggéey rafet na di jaajëfal les maires les présidents de conseil départemental di jaajëfal tous les élus les conseillers territoriaux suñu waxee loolu di rappeler rek enjeu wu élection bi élection législative la moo ñuy permettre incha allah ñu sauvegarder ñu sécuriser la mise en œuvre du projet fan yi weesu le président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko présenté nañu l'agenda national de transformation systémique et le référentiel 2050 agenda boobu projet bi suñ ko bëggee mettre en œuvre il faut que absolument impérativement obligatoirement ñu jox ko une majorité confortable une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale inchallah nu ma gisee mobilisation bi nu ma gisee seen détermination inchallah majorité boobu dinañ ko am à l'Assemblée nationale une majorité qualifiée une majorité confortable donc loolu gëm naa ko parce que liste ba la liste ñu ko composé aussi bien la liste nationale que les listes départementales c'est des candidats de qualité su ma waxee ci structures yi mënu ma fàtte les coordinations départementales les 46 coordinations départementales et les coordinations de la diaspora maa ngi leen di nuyu toutes les sections communales nuyu naa leen di jëleen jaajëfal tàccu leen seen bopp fu may jeexalee mbokk yi kan mooy waaj a ñëw président de PASTEF, tête de liste Allez, oh. du parti PASTEF. Oh. Oh. L'espoir de cette jeunesse. Oh. Est-ce que ça va? Si. Oh. la torsi tac, la torsi tac, la torsi tac. Ne fais pas du tac, ne fais pas du tac, ne fais pas du tac. Ne fais pas du tac, ne fais... Souleymane, Souleymane Est-ce que ça va aca gaay gaay gaay may ñu may ñu gaay gaay gaay teel a torsi gaay may leen ba ma ñëw may leen ba ma ñëw seen yaram tàng na de Souleymane préparé ma Ismaïla Lo bi Ismaïla Lo Ismaïla Lo xaar ba pare nga Moustapha gaay du tëgg fële gaay du tëgg fële est-ce que ça va Sénégal est-ce que ça va ma ma am lu ma leen wax gars yi déglu ñu dal gars yi pare ngeen dal leen ñu tëkk fële ñi ñu tëkk fële nëbbal leen ma ko tuuti gars yi dal leen dal leen ñu tëkk fële gars yi doo leen mën ñu tëkk fële oh oh ñi ñu tëkk fële nee na ñu. gars yi merci beaucoup merci beaucoup gars yi seen yaram tàng na léegi xam nga la laa ñaan oh la laa ñaan leen torsi yi ngeen noppi tar leen torsi yi ngeen noppi oh, oh, oh, fi mu seen bi fi mu seen bi nañ ko fay fi mu seen bi nañ ko fay. salaamaaleykum asalaamualeykum asalaamualeykum allo allo allo allo déglu leen déglu leen déglu leen ça va et eh, torsi l'attaque torsi torsi torsi et eh! Abamu Abbas Abbas waa perte bi ñun bëgg nañ gaaw de mais gars yi bàyyiwuñu de dañ la mën saa waay voilà on enchaîne. merci beaucoup jërëjëf gars yi gars yi merci merci. poos day wàcc. Abdou